kazalika jacalnaakum ummatan wasata li takunu shuhada ala annaas wa yakuna rasula aleykum shahida sadaqa allahu alazim wax jooju la Buur Sine dégg moo tax mu def témoignage bu am solo ci cheikhuna Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu muy benn buur bu am màggal tey nag ñu nekk ci bis bu am solo muy 7 juin ñuy fàttaliku témoignage bi nga xamante ni Buur Sine ku defaloon na ko ku jar a témoigné muy Cheikhuna Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu moom mi nga xam ni léppam alquran la moom mi nga xam ni léppam sunna la waaye moom mi nga xam ni léppam da ko jox Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa moo tax mu ni kanzil kitaabu wa xadiis wal adab laa jamci fiddatin wala jamci zahab lu waaye wax lu dul ma nekk xaadimu rasul rek waxoo leneen lu dul moom kon mu nekk loo xamante ni lu am solo la Buur Sine Coumba Ndoffène dëggal ko ci bis bu am solo muy 7 juin bis boobu nag moom la ñuy fàttaliku tey nag incha allah ci édition vingt 2024 ñu fas yéene taxaw ci ay tomb yu ama am solo témoignage boobu naka la demee woon laataa Buur Sine dem est-ce que dafa jug rek dem témoin wala am na ñu mu waxtaanal laataa muy dem naka la demee ba ba muy dem Saint-Louis daa def seedam bu am solo boobu tey nga xam ni moo waral màggal gi. ñu toftal ci beneen thème boo xam ni thème bu ama am solo la muy relation yi nga xam ni amoon na ci Buur Sine Coumba Ndoffène ak waa Sénégal Bawal Sine Saalum Jolof bu ci nekk tey incha allah dinañ ci fas yéene taxaw ak borom yi xam-xam incha allah ba lu ko kenn nettali kon ñu teg foofu baaraam daal di dem ànd ak yéen def ay ay wër ci fii ci Sine waaye taxaw ci tomb yooyu nga xam ne incha allah moom lañ fas yéene séq ak yéen. waa mbokk yi comme ni leen ko waxee woon rek. tey incha allah ñu fa yéene ànd ak koo xamante ni nekkatul ko ñuy présenté muy Ablaye seen maîtriser bu baax a baax a baax histoire bi nga xam ne mooy histoire Sine waaye mu jaral ko lu nekk waaye aussi mu laabir ci kon dañuy am mbégte bu baax toujours di ànd ak moom ci suñuy reportage di ànd ak moom ci jotaay yu mel nii ndax xam-xamam ak farloom ak bëgg lu baax sëñ Ablaye maa ngi lay ziar. Eh, maa lay ziar bu baax eh, di am kontante eh, ci teew bi nga xamante ne dellu siwaat ngeen ci kër gi ndax it. ñun ñu ko bëgg yéen ñi koy jàll yéen a ñuy dimbale te ñu toll jamono joo xamante nii ji koy maam ñi jar nañoo wone ndax ñoom ñoo nekkoon ci li nga xamante ni yàlla gërëm na ko ndax ci dëgg lañu nekkoon ci gëm seen bopp ak gëm seenum réew loolu nag bu fekkente ne mag ñu baax ñi euh, bay nañ ko fi kon ñun ñu fi des doon ay seet dañ ko war a wallat looloo waral tey fi mu toll nii màggal gii nga xamante ne Buur Sine Kumba Ndoofeen moom moo ko defal Sëñ Tuubaa ci la la la le 7 juin nekk bés boo xamante ne benn bés lay doon ci biir réew mi mootul ñaar kenn def ko te kenn dootu ko waxati waxaloon ko kenn koo xamante ni ko tamit dootu amati ndax Serigne Touba raaf na ci biir àdduna ku mel ni moom dootu amati ndax ay jëfam waaye wax ju mel ni waxu Buur Sine Coumba Ndofféne tamit dootul amati ci kaw suuf kon bés bi dafa nekk bés boo xamante ni lu ñu a jàngal yi la ndax li ñu ciy jàngal xale yi mooy bés boo xamante ni li muy wane mooy dëgg fit njàmbaar ngor te lii nag bu génnee ci nit dara tu ci kon ci dëkk bii tey yéen a nga ñëw ci dëkk bi di jaxaaw fii ñu taxaw nekk bàmmeelu euh, euh, Wasila Faye Wasila fay nag moom mooy ki nga xam te ne moo sanc dëkk bi njëkkul nekk nag buur siin waaye mooy buur bi sanc jaxaw ci ci bàmmeelam lañ nekk nii te moom mu am histoire bu yaatu ndax léeg nga dégg ñuy jaawale ndax Wasila dafa am bu mag ak bu ndaw bii nag moo moo def jaloore bi nga xamante ni mooy cosaanu jaxaaw siin waaye siin nag moom bari na ay buur waaye kii moo sanc jaxaaw kii moo sant jaxaw muy Wasila incha allah noonu lañ koy ànd mu présenté ñu ñi nga xamante ni mooy jàmbari fàkk tëdd yi nga xam ni ñoom ñoo nekk fii suñu paree nag ñu taxaw ci ñaari tomb yu am solo mooy témoignage bi nga xam ni Buur Sine defal na ko Cheikhuna Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu ba léegi rek euh, ba léegi rek ñu leen di wéyale di leen wan euh, barab yi nga xamante ni ñu ngi ci biir kër gi barab yi nag euh, li tax ñu leen koy wan ba léegi rek ngir fàttali la ndax barab boo ci gisoon tey buur bu ñu ci denc fañ la denc foofu moo nekkoon sa bopp néeg kii nag euh, mooy lasuk fañaam moom ak soxnaam ñoom ñoo fi nekk guy yi nga xamante ni moo nekk euh, ci bopp bi ñaar la fi woon benn moom benn bi soxnaam fañaam nag ci séeréer mooy bañ naa lan moo waral bañ naa euh, moom dafa nekkoon ku yomb koo xamante ni wax dëgg yàlla amul benn jafe-jafe waaye ba ko bàyyam ne laasuk woo ko ba ñetti yoon ñeenti yoon mu ne waaw mu ne ko góor day bañ boobaak léegi loo ko waxati mu ne bañ naa mu nekk ku awoon solo koo xamante ni liggéey na ci biir réew mi moom mooy laasuk fañaam fay ci lañ nekk ci bàmmeelam nii ko ba léegi rek ñu wéy di leen xamale ak euh, bàmmeel yi nga xamante ni ñoom ñëpp ay bursin lañ tëdd ci biir kër gi ndax ku ci nekk am ay say jamono yoo xamante ne liggéey nga ko mu jëm ci biir dëkk bi dem ci biir siin gépp liggéey liggéey boo xamante nii ba léegi des na fi moom nag mooy euh, Jogo Ñilaan moom tamit euh, am a Juuf Ñilaan moom tamit histoire am ci siin mu nekk histoire bu am solo ndax ku ci nekk rek tey boo toogee la ngay liggéey bokkut ak sa morom la muy liggéey kon ñi bu ñu la xoolee bu ñu la waxee tey bés bi tey ko waral ñii ñëpp ay maam lañ ndax Bour li ko dalee ci gañog baayam ak néegu ndeyam ñëpp ay defkatu jaloore lañ ay borom siin lañ. di leen xamle ak euh, barab yi nga xamante ni ñu ngi ci biir kër gi kii nag sam def cee spécial ndax li tax mooy ñu bari danoo yaakaar ne histoire Bour Sine Coumba ak Serigne Touba ci Coumba Ndofféne la la la tàmbalee waaye gis nga maamaam ji tëdd muy Bour Sine Mbacké Ndeb kii xam na sëñ maaram maam maaram Mbàkke la tudd te euh, maa maaram Mbàkke ku ne xam na ne moom moo jur Mamadou moo Mamadou Sali moom mooy waajuru ki nga xam ne mooy Serigne Touba moom lañ ko dippee mu am histoire bu yaatu ak siin am histoire bu yaatu ak Mbàkke Bari kon bu ñu la nee ci bur siin yi am na ku ci tudd maam maaram mbakke Diouf war na laa mën a yéem ñu ci bari nag duñ xam Mbàkke bi lu ko waral waaye nag Mbàkke bi maam maaram Mbàkke la waaye li waraloon mbakke gi Euh, waajuram wu góor dafa nekkoon comme te ne amoon na yéen tuddee sëriñ bi euh, tur te moom xamu ci lu dul mbàkke ndax dégg na ne dongo yi koo ci woo mu ne mbàkke boo woowee sëriñ bi ne mbàkke nga woo dongo yi mu ne mbàkke bi mu nga xam ne am na yéene nag bi mu juree doom xamul tur mu ne ko mbàkke looloo waral fi mu toñ tey mu am bursin mbàkke maak am bursin mbàkke ndem kii nag nguuram daf ci def lu rëy ndax ba mu faloo fi mu toll nii ay mbokkam ak kër baayam néegu ndeyam kenn ku ci nekk daf leen woo ca penc ma ñu ñëw fi mu toll nii mu ne mbooleem ku yor matériel buy bay bu nekk buy liggéey ci àll bi indi ko ci penc bi ñu indi mu boole lépp taal ne tànk maa ngi falu kenn du sonn kenn du liggéey te ñëppay jëruñu kooku mooy Buur Siin Mbàkke mba Mbàkke miy tëdd turandoo Mbàkke gi euh, xam nga ci turandoom la moom ndax euh, moom ku ne xam na ne Lat Goroŋ Kottab ak Lat Goroŋ Xorgo ñooñu ñoo meññ Mbàkke yu mag ya kon xam nga ne histoire bi dafa yàgg lool te la ko waraloon ñoom nee nañu Mbàkke euh, Lat Joor ak moom ay ay fasam moo réer mu di ko wër di ko xeeñtu ba gisee ko fi nga xam ne mooy Mbàkke Baari sëñ mbakke Maaram ñu taxaw ci pencoom di féexlu fi mu toll nii mu fekk leen fa dugg ci këram wut gàtt lewetal ko defal leen ay ay ay ay ay bernde ndax xam nga ne askanu maam Maaram bernde rek lañ leen xamee ak teraanga bi teraanga ji yaatoo nag séréer daay bu rëy day borom jom te loo ko defal bëgg na laa defal lu ko ëpp ci la ko nag fi mu toll nii dama bëgg nga seet si ma Ndiourbel Sine bi mu ñëwee sëñ bi seet si ko fa ah euh, ba ngan gi waaye jeex mu jàmbat ko soxlaam sëriñ bi tamit fekk ko ca ñaanal ko ca mu am ci Buur Sine euh, mbakke mu mag am ci mbakke mu ndaw ba ci mbakke yooyu fi mu toll nii ci la mbooleem tur boo xamante ni mbakke Njaay la bu nekk ci biir Sine muy góor muy jigéen ñu koy wuyoo ci loolu la soqee ko. gën la xamle euh, bàmmeel yi nga xamante ni ñu ngi ci biir kër yi. Euh, tey ñu nekk fii ci xabru jogo ñilaan juuf kii tamit moom tamit def histoire boo xamante ni dafa rëy lool ndax kii bu siin amee jàmm tey fi mu toll nii bañ mën a xam Bour Sine ku ma Ndofeen mu mag ñu mën a xam Bour Sine ku ma Ndofeen mu ndaw kii moo tax tey li histoire siin di riis riis ak li muy rëy rëy kii lim ci def kenn def ko ci moom nag ba léegi rek wax naa la ne ñoom ñëpp ku ci nekk maam la ci Bour Sine ku ma Ndofeen mu ndaw ndax néegu ndeyam gañoog baayam ñoom ñëpp kenn ku ci nekk fi mu toll nii ci kër Bur Sine nga bokk kon moom yaakaar naa ni lu mu def ci Sine rek defit la ndax yàlla moo dogal mu donn ko ci ndey donn ko ci baay. ci biir wax maa ngi dégg naan Bur Sine mu mag Bur Sine ku mën mu mag ak mu ndaw looñ ci mën a dolli. loolu mooy euh, ñi ñaa ngi jaawale. léeg-léeg da ngay déglu rajo bi mbaa télé bi ñuy jaawale li ñuy jaawale mooy Bur Sine bu ñu la ko waxee mu ngi mel ni ñu ne président de la république. amoon na Senghor am na ab Abdou Diouf am na Abdoulaye Wade am na makisal tey am na Diomaye kon loolu titre la Bour Sine titre la Bour Sine boo dégg am na tur euh, bi Sine nekkee ba tey nag juróom fukki buur ak juróom benn ñoom ñoo falu Sine kenn ku ci nekk fi mu toll nii tey da ngaa am tur may sa Wali moo njëkk a falu Tase Faye Wagante Neng Jon Njuma Jeng Banga Yaya Sarr Joomaay Ñaan Silwang Maroon Wasila Faye Jeesanu Faye Mbegaan Ndour Wagan Maye Soum Joket Fajer Sarr Waa Mbisaan Diop Boko Soy Faye Joomay Panga Sarr ba 56 si mat ba ci maye koor mi mujj ñooñu ku ci nekk fi mu toll nii tey bursin nga ñii sant nañ Diouf ñii sant nañ Ndiaye ñii sant nañ euh, Ndong ñii sant yaa ngi dégg kon loolu ñi war nañ ko mën a xàmmee mais boo ñëwee nag ba ci bursin ku ma bu mag bu séeréer yi dañ naan bursin ku ma Ndofeen famaak dakkantal la fa maak pour ñu xamee ne Coumba feen mi mooy bu mag fa ndeb mooy Coumba feen bu ndaw am na ñu naan Bursin Coumba feen euh, sukka mbul buñ la ko waxee ba léegi bu ndaw la ndax baayam moo tudd sukka dëkkoon mbul Bursin Coumba Ndofféne sukka ndee la buñ la ko waxee mooy Bursin Coumba Ndofféne bu mag ndax baayam sukka laa ko jur yaa de loolu yëpp nag fi mu toll tey boo ko xàmmeewul da ngay jël Bursin Coumba Ndofféne bu mag histoire am nga indi ko ci Bursin Coumba Ndofféne histoire am te Coumba Ndofféne bu mag histoire bi mu def def na xare ak Pierre Laplane def na xare yoo xamante ni tey moo may siin jàmm mais Bour Sine Coumba fen mu ndaw mi nag li tax lii xew tey moom ci ay jëfam li ci gën a yaatu mooy seere bi mu seere sëñ Touba ci Ndar en 1903 kooku nag li tax ay bisam bisam sotti dafa taqaloo koo xamante ni ni jikkoy diwtiir la yore kum laal nga niin ku ko laal niin muy sëriñ Touba jàmbaar ji nga xamante ni dafa ne dan Seydina Mohamed jàkkaarloo ak moom way ko di ko tagg bind sept tonnes cinq cent di way Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam fi mu toll nii mu di ko may di ko jox balam yoroon jeex mu ne ko ceex ne ko Ahmadu mu ne ko Mbàkke mu ne ko la ma yoroon jeex na tàkk xaar ma booy jeexal ci la ko yóbbu ba ci kanamu suñu borom mu may ko loo xamante ne kenn dootu ko am ci kaw suuf looloo waral fi mu toll nii tey Bour Sine Coumba Ndoffène doon doomu soxna am liggéey am cër boo xamante ni nit dugg na daara nekk doomu soxna te amuloo lu toll ni mu am ndax nag la ko may mooy li ñu doon ñun séeréer muy dëgg muy fit muy ngor muy ngar mi xam nga njullit day am waaye njullit bu fekkeete ne am na te lii nekkut ak yow matut njullit bu feebar ngay doon waaye Coumba Ndoffène nag ba mu kay def ku ne xam ne ne xam nga léeg-léeg gaa yi ngi ñu ngi jaawale Coumba Ndoffène bi ministère Sëñ Tuubaa du jullit la waaye ceddo ba gëm boppam gëm yàlla ndax nag boo nee yaa ngi julli di wax julli waxtu juróom te dàq sàcc dàq fen dàq njaaloo boo nee jullit nga bokkut ak ceddo bi nga xamante ni ci dëgg la nekk ndax diine dëgg moom moo ko lal kon kooku mooy Coumba Ndoffène Ndieme moo seere sëñ Tuubaa ci Ndar en 1903 ñu dellusiwaat le 13 juin mu dem Daaru Manaan ndax bi muy seere sëñ Tuubaa dafa wax gouverneur ne ko seere bii may seere sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa jóg na ay mbokki boppam yi nga xamante ni ñoom ñoo bokk deret bokk lislaam bokk diine kenn ku nekk di wut ay xalima di bind di xaatim sëriñ Tuubaa ngir mu jóge fi ndax lan sëriñ si bëgguñ sëriñ Tuubaa feeñ buuru àdduna yi nga xamante dañ fay nekkoon bëgguñu seen nguur gi fay balaa Serigne Touba ëpp leen doole ñii di gas ay reen di suul ñii di xaatim di suul waaye biñu demee ndar nag Buur Siin lam def mooy da ko ne gouverneur ma ne ko man dëgg moo ma tax a jóg ndax man su may wut ci kaw suuf ñett ñi rek laa war a indaale te ñetti yi ma ñett yi rek laa war a sàkku te ñett ma war a sàkku am naa ko ba noppi fii ma ñëw bi may ñëw man maa sol man dob siid fii ma toog nii tey man lañ dénk suufu siin fii ma toog nii tey man maay buur siin kon lan lay sàkku man lumay may wax dëgg rek moo tax ñu ne ko sa kaddu gi réer mu ne ko man toogoon dis waaye garanti naa ko bi mu dellu see fii nag waxtaan ak mag ñi la tax ñu dem daaru ma naan léegi war naa leer ndax bi muy dem daaru ma naan boobu demul ngir seet lu neex Serigne Touba dafa demoon ngir sàmm kàddoom gi ndax nag séeréer naa lay gara goro xesangaa lay aji ko oñu sum gor su nekk fi mu toll nii ci kàddoom lay dox waaye bu fekkee ne dañoo dem réew mi fi mu toll nii ba say wax ak say jëf méngootuñu yow xamatoo loo doon kon looloo taxoon mu dem daaru ma naan bi muy dem mu ànd ay gawar yoo xamante ne kenn ku ci nekk mu toll nii mat nga bursin li tax màggal gii bu taxawee du murit du tijaan du chrétien ku mun a doon fi mu toll da ngaa jóg àndoon ak bursin ndax booba la fa mooy ngar mi ak deret ndombo man mii di wax ak yow fi mu toll nii tey ma bokk ci doomu géwél yi nekk ci biir dëkk fi mu toll nii ci sama maam tey boo demee ci ah, liste bi àndoon ak bursin sama maam moo ca nekk fi mu toll nii doon wàllu ñing kon ñun li ñu nekk fii tey nekkul lom te ni koy fortaatu di wax ci télé bi loo xamante ni xamuñu ko mbaa ñu jaxase ay histoire nit ki da ngay xam la nga doon ba pare xam sa bopp xam la tax ngay wax nga doog a wax ndax nag jaxase boo ko defee rek di nga réeral ki nga xamante ni war naa xam ta xamul asiru asiru maa al abraari xiina asiru wa zanna al ida anni hunaka asiru qusuuri qallat wal ahlu anni tafarraqat li matxi allazi anhu l madihu qasiru kooku la mooy cheikhuna cheikh ahmadou bamba radiallahu taala anhu muy génn mu metti loolu waaye la muy génn génn muy métti bi mu ñëwee lu mu wax lii kun bi kun sarmadan wajaal masiriya da jawfal fara lil wara misla al maharimi waaye gannaaw jëf ju mag jooju gannaaw jëf ju rëy jooju buux sin ko mandoofeen moom it def lu rëy am lu rëy wax lu rëy muy seede bi nga xam ni seedal nañ ko cheikh naa cheikh ahmadou bamba kan mooy buur sin ko mandoofeen jërëjëf laaj nga ma ku neex a tont mooy jàmbaar ji nga xamante ni li gaa ñi bëggoon ci yàlla ak yonent bi ak ngërëm ba mu jaral leen wari fas gàddu yi fetel suñ borom jox na ko ko ci jikko ju rafet ak dëggu bam am garaat ba te jaasi jógul deret tuuruwul bursin ku mëndoo mooy doomu lingeer njem juuf lingeer njem juuf selbe ñaadi moom moo ko jur selbe ñaadi ak bursin ku mëndoo feen bu mag ñoo bokk ndey ak baay kon ñiy jaawale Kumba Ndoofeen bu mag ak bu ndaw bu déggee lii dañ xam teqale Selbé Niadi ak Kumba Ndoofeen bu mag ñoo bokk ndey ak baay Selbé Niadi ñu yëkkati ko jox ko ngooni bu Ngóoni a ngooni am ci Bursin Semmaak mi demoon Nioro am jojo ko du borom dawraas am ci lingeer njem lingeer njëm ñu jël ko jox ko Sukkambul mu am ci Bursin Kumba Ndoofeen miy tëdd bursin sem maag nijaayam di xare ak bursin su euh, sukkambul mi baayam ànd ak ki nga xamante ni mooy sanmoon bursin sem maag ne ko sama jigéen ngay denc may xare ak sanmoon nga ànd ak sanmoon su ma daanalee sanmoon dinaa nangu sama jigéen bursin sem maag di xare ak sanmoon daane ko ci xojil ba ko daanalee kii di bàyyi bursin ku mu ndoxee di sukkambul ne ko du ma xaar sa càmmeñ ba jël si la yewi naa la ndax ñoom toujours rekk nit ñi tegi ak ngor gi day feeñ ci ñoom bëgguñ ko leen tuddal yàlla weddi ñu yëkkati ko jox ko jeenga co mbadat bursin ku ma ndofeen am ci ñetti rakk waaye ñetti rakk yi benn du ci góor am ci lingeer poot am ci Linguère Sanu am ci Yandé Kumba ba tey Bour Sine Kumba Ndofeen moomu ñett rak yi mbokkal ndey bokkut ak ñoom bàyyi ndax ñoom fay lañ sant loolu nag ku dégg waxtaan wi xam li xew di nga bàyyi jaawale ndax tey boo demee Ndofane maat dinga nga fekk bàmmeelu Bour Sine Kumba Ndofeen fa maak ak jengàcc mu mag fañ leen denc nga ñëw fi jaxaw fekk fi xabru buur sin ku mëndoo feen mu ndaw nga xam ne kon kee defoon xare bi en 1867 ak mama jaxu ba maam la ci kii ndax mook maamu kii ñoo bokk ndey ak baay kon koy wax di yàlla xanaa taqale moom foofu ba naa set ba mu set ba mu ba mu leer kii nag biñ koy jox nguur gi ci siin amul ñaar fukki at ci fukki at ak juróom-ñett mbaa lu ko yées ci lañ ko joxe nguurug siin bi ko baayam jëlee mbul téye ko ci loxo indi ko ci pénc mi ñu war koo jal war koo fal siin ne ko su ko munee juuf mu ne ko sa doom jak gën a tuuti mu ne ko jëmm jee tuuti waaye ànd lu tuuti ñun li ñu jaaxal mooy buur bi bët yi dañuy jooy mu ne li tax sama bët yi jooy mooy mu ne sama pal gi nawet bi dugub yi dañoo focci lu bari focc te dugub yi ñooy jam sama bët yi moo tax muy jooy nga xool xéewal bay dugg ku amoon gis-gis la bañ ko falee mbooleem garab gu dekk ci biir siin garab yëpp ay tuuri lem moom nguuram naataange la woon ndax li tax mooy daa nekkoon dëgg nguuru ba yàlla boole ko ak Serigne Touba mu ànd ci dëgg googu dëgg googu amoon nag fi mu toll nii moo ko may lii. léegi maanaam bala ñoo ñëw ci dëgg googu dañuy taxaw ci tomb bu am solo muy seede bi ñëpp xam na ni buur ni ñu organisé woon am na jaraaf. am na bisik am na ñi nga xam ne tey ñoom ñoo ko war bépp décision bi muy jël dina ko waxtaanee ak ñoom laata Buur Sine di dem fële ca Ndar ngir seede Serigne Touba naka la dundee événement bi noonu laata muy dem di seede ji. xam nga dem gi du seen sago mbooleem ku dem Ndar sa sago yóbbuwu la gouverneur dafa nekkoon ki nga xamante ni moo nekkoon chef suprême yor lépp. bi nga xamante ne toog na ndax loolu ñooñu bi muy am daanaka boobu nguur gu ñuul gi mu ngi commencé jeex boo xoolee daanaka Buur Siin kumandoo fenn képp moom moo dem yóbbaale mantoog nguur dëggantaan ci buur ya fa teewoon ñi ci des ñëpp ay de canton lañu woon rëcc nañ seen nguur ñu nekkati ay chef de canton bari na ñu ma tudd waaye li ñuy amal solo mooy kumandoo fenn moom mantoog nguuram lu yóbbaale bi mu demee tamit. lam dégg ñu wax ak moom lim gëm du benn ndax booba ñay wax waxuñ te yàlla tax waaye ñu ngay wax ngir seen bopp ndax boobu am na sëriñ soo xam te ne jiitu nañ sëriñ tubaa te ni yàlla def sëriñ tubaa neexu leen ñuy xaatim di fexe ngir sëriñ tubaa du feeñ ci seen kanam ëpp leen doole lu ñu xam ci loo xamante ne war na ko mun a gàllankoor ci seen xalaat jéem nañ ko te booba xamuñ ne ko yàlla waajal wàcc nga taftal ci buuru àdduna yi fi newoon nga xamante ni ñoom tamit bëgguñ seen nguur gi rëcc ndax Lat Joor mii nga xamante ni moo sooke xare bi Buur Sine Kumba Ndoofeen bu mag def ci mbett mi ci kër ngóor ñu jeexale ko fandaan en 1867 Lat Joor moo ko sooke te booba Lat Joor xaali yi koy àtteel mooy xaali ma jaxate kala ak ki nga xamante ni mooy waajuru Buur mooy waajuru Sëriñ Tuba ñoo nekkoon xaadi yi àtteel euh, Lat Joor kon xam nga ne sëriñ tubaa ñëw na fekk ay waajuram ñu nekk ci liggéey bi waaye moom bi mu ñëwee suñ borom da ko waajal ba mu set yëpp ko ba mu diis téeñal ko kon ku koy jéem a fexeel xamuloo waaye nag jëmm ji tëdd booba nekkul sëriñ nekkul jullit ceddo la waaye ceddo day ñeme dëgg ndax ci ngar mi lay dox ndax tey fii boo nekkul doomu gelwaar munoo falu siin kon mu jël deretu gelwaar bi ak ngar nguur gi tax looloo tax rus naa wax lu nekkul mbaa mu def lu nekkul wax lu nekkul faatu mu ko gënal def lu nekkul faatu wute ko moo ko gënal moo tax ba ñuy seeree ngir ñoom seen bakkanu bopp moo mu seere ngir sabilillah euh, ñëpp xam na ni buur euh, du jóg moom kase ndax buur buy jóg il faut mu am ñoo xam ne ñoom lay àndal est-ce que buur suñ bi muy dem di seede ji ndax moom rek moo demoon wala am na équipe boo xam ne moom la àndaloon bursin bi muy dem ànd na ak mbooloo mu bari xam nga jaraaf mooy fal buur buur nag jaraaf mun na koo fal ci ñenn ñi liñ nettali ndax ñenn ñi sax nee nañ jaraaf kenn mënu koo folli lu nekkul dee waaye gis nañ ne bursin Kumba Ndoofeen mii dong moo am jaraaf bu sant seen muy mbañ jugur seen jaraaf yi ci des yëpp ci siin te doon nekk jaraaf bu mag ngom la ñuy sant waaye moom nag jaraafam mbañ jugur la woon àndoon naag moom ànd ak ki ñuy wax njaañaaw nduur ànd ak ay doomu baayam ànd ak ki ñuy wax ngen ñang mboolem borom ndomo bu mag boo xamante ni mu ngoon ci couronne royale bi bokkoon na ci yoon woowu kon nekkul ne Buur Sine rek moo demoon Ndar nekkul ne Bur Sine rek moo demoon Daaru Manaan waaye kéemaan gi xew mooy bi muy dem Daaru Manaan bi mu jógee fi mu toll nii ba ndeyam bi nga xamante moo nekkoon Linguère mbàkke Ndiaye ca jamono jooja moo nekkoon Linguère dëkk bi Bur Sine mën mëndoo fee nekk Bur Sine bi mu jógee fii ci kër gi dafa waaxu dem Cupaan ndax Linguère du dëkk ci kër gi Cupaan lay dëkk bi mu demee fekk fa yaayam boobu ndey la ci moom mu dem sàkku ci moom ñaan tàgg ko ne ko dama war a dem ngir wattu ji gannaaw ma seeree ma wattu ji fekk cupaan mu ñaanal ko boo déggee ci aw am na at mu sëriñ Moustapha Saliou ñëw fi te sunu maam ju tedd ja soxna Kummoodi Diouf mi taawu Buur Siin Mayekoor di ci seere ne sa maam da ko ne demal te booy dem nga inaale ngor ndam ak manoore baamtu ko ba ñeenti yoon defal ko secret biir néegam ndax am na luñ doon doxe ba mu ko bëttee ñeenti yoon mu ne ko nag sooy dem nag bul delluwaat kër buur na jaar ci ngéwél gi romb sirkante dogg wutali tuuba noonu la ko defe it suñ borom may ko ndam ndam loolu ci lay dox fi mu toll nii ba tey looloo waral tey nit a nga nee judd ci diine lislaam te mënoo am bés bi waaye moom mu judd ci dëgg ak ngor ak ngar mi ba am bés bi ba tax na tey fii mu tëdd tey sëriñ Saaliwu Mbàkke daf waxoon ne bés bii nga xamante ni mooy bésu seereebs Boursin bi su tan tombee sax ak li nga mooy màggalu Touba na ngeen ko def ndax bés boobu de bokk na ci li tax bésu màggal Touba bi wéy ndax bu fekkoonte ne Serigne Touba amul ndam ci yoonam wi kon bésu màggal Touba du taxaw. xamante ni bokk na ci bési fondement màggal Touba. kon ngor ndam ak manoore moom la Boursin dem waaye moom la indaale. Euh, sama dernière question rek mooy euh, buur bi bi mu jëlee décision bu nga xam ne moom la jël ci seere Serigne Touba ak taxawaay bi. dañoo gis ni amul kenn koo xam ni mi ngi ci bu mi ngi ci siin koo xam ni dégg na ni am na am na ci jeexi jaaxa wala bokk muy taxaw di résister ñoom ñëpp dañ cee ànd lan moo waral booloo boobu ak gis-gis boobu ñoom ñëpp bokk jikko la wala lu ñu waxtaane la wala lu ko waral xam nga nag fii li xew léegi ci ci tarixa yi ci fii la soqee ko ndax suñu la mosaan a fal benn kàddu mooy jib su buur waxee kenn dootul wax mu ngi mel ni tey xalif général su nee dama ne kuy murit te muy dëgg ci yow wa illaa sax nga nekkoon jullit te muy dëgg ci yow sëriñ Muntaxa Mbàkke su nee dama ne waroo cee teg baat loolu nag mooy cosaanu siin bu buur mu seenee ne dama ne kenn ku ne la la neex ak la naqari ak la nga bëgg lépp ngay teg ci suuf wéy ci lim bëgg looloo taxoon. jërëjëf sëñ Ablaye kon daal liggéeyal ku mat a liggéey mu am gën ji fay ndax sëriñ Tuubaa ni fa kullu man xadama nii aw daara fa najjihu waghfir lahu aw daara ajru allazi nazaani walam yatub shaqawatun taduru fi ummil kutub kon ak yeneeni buur ak suñu kilifa Ablaye Sène kon tey ñi ngi ci beneen buur moom mooy ki nga xam ni moom lan mujjee gis ci buur yi nga xamante ni tey mooy buur yi tëdd fii waaye nag mu am ak relation ku am solo muy Serigne Modou Moustapha mi nga xam ni Mouhamadou Moukhtar mi ngi naan ko Mouhamadul Moustapha yaaram bi kenn gënu la ci penku ak sow yaa mën ñëpp kenn mënu la xawal fadailu fi dunia wa axiratin yaa mën ci tollu ahmadou bamba bi kenn mënu la mii moustapha mooy moustapha ku fi bàyyi mii ëllëg yowmal xiyaamati doo gis moustapha ban relation la sëñ Modou moustapha ak Buur bii nga xam ne tey moom lañ tiim amoon waaw relation bi nga xamante ni Buur Sine Mayakor amoon na ko ak euh, sëriñ Modou moustapha mun nañoo wax ne ci sëñ Modibo Sylla la yem ndax laata sëriñ Touba di làqu ci saayir dafa bëggoon ku ñëw siin ginnaaw gi ku tedd ki làqu ci saayir sëriñ Modou Moustapha lépp lu nekkoon xemmem teefu sëriñ Touba matal nag ci la toog ba 1928 mu yebal ki nga xamante ni mooy euh, sëñ ma Madiba Sylla ne ko demal ma siin mu ñëw fiit bi mu ñëwee mu toogaay toogaayu ab dongo waaye toogaay bi metti lool bi méttee loolu nag mu dem ba yónneewaat ndaw ci sëñ Modou Moussa mu gën a dëggal li nga xamante ni mooy ndigal la ci la sëñ Modou Bassirou la nag xam ne lépp ci loxoom la war a mën a jaar mu toog di sanc muy am jafe-jafe muy sanc muy am jafe-jafe ba suñ borom yombal lépp bi mu yombalee lépp nag diggante bi euh, ndax Boursine Koumandoo Fène moom mu ngi dem 1923 Boursine Mahécor mii toog toog 1924 ba 1900. 69 euh, mu jóge fi waaye foofu nag moom bi mu faloo fekkante ak di Modibo la nekk fi ñu am kóllëre gun seq moom mii nag moo yëkkati suuf ndax bi nga xamante ni xam na ne sëñ Modibo la daa war a liggéeyal Sëriñ Tuubaa bi mu xëyee ñëw nuyu si buur si ndax xam nga siin fii àjjuma dañ daan nuyu buur bi séeréer si nuyoo buur ba noppi moom mu def ay pexeem ci ni muy nuyoo buur ba buur siin jàpp ne kii kat nitu jàmm la nekkul kuy xare ndax jamono sëriñ bu ñu mës a yebal ci fii rek ñun dañuy am ñaaw njort ndax ma Jaw Ba bari waan na sëriñ yoo xam te sax ñëwuñu woon fii ndax yaakaar ne bu ñu dañ leen di rey ndax diggante Coumba Ndoffène ak Maba Jaw Ba buur yi it sëriñ bi fi musaa na ñëw dañu am ab ñaaw njort ngir doxinu almaami ñoom moom almaami ba waaye bi ñu ñu xam ne euh, sëñ Madiba Sylla la borom jàmm la te daa bëgg a liggéeyal sëriñ tubaa mu ne ko léegi boo xesee génn kër gi li ko tàmbalee siinaane ba ca sow xoolal lu la neex nga dagg kër yoo dëkke nga xool lu la neex nga dagg ay tool yoo baye ci la sëñ Modou Basile la dox ba ca penku ba fu ko day ne ko juuf fii doy na ma mu dagal ko ko ci la sëñ Modou Basile la bay nawet boo xamante ni la ca génn lépp ci xewal dafa wax dongo yi ne képp koo xamante ni si yaakaar nga ma ñu topp Serigne Touba fépp gerte bu ci kenn sax ñu yëkkati ko jox ko sëñ Modou Moustapha addiya ca bokk na ci loola ca lañ tabax fondement jumaay Touba ji kon suuf soosa moom mi moo ko joxe moom nag bokkut ak buur yëpp ndax moom jullit la ndax moom ku ne xam na ne sëriñ Cheikh naa Cheikh Sadibou mooy sëriñam ci moom la jokk woon mu nekk wasilaam ku xamoon siin bu njëkk xam nga ne xaadir yi fii lañ daan nekk di seet si buur siin mayekoor def ay ngan yu yaatu ba jur na ay doom yoo xamante ni mu ngi leen dippee Sadibou juuf magu Fodé mu ngi ko tuddee euh, Cheikh na Cheikh Sadibou ak seeni njaboot yu bopp yoo xamante ni jóg nañ dugg ci biir kër ga liggéey fa ba am fa ay ay ay ay ay ay ay doom kon ñoom nii ñu amlante ak Serigne tubaax ci njaboot ak kóllëre noonu lañu am lante ak xaadiriyaay euh, am ci ak njaboot noonu lañu am lante ak Seydi Alaaji Malick ndax moom mii nga xamante ne mooy Buur Sine Mahécor Biram Mbaru mi ko jur Bursine Coumba Ndofféne bu mag moo ko jur Bursine Coumba Ndofféne bu mag nag ci mbett moomu ci kër ngóor en 1867 dañ fee jël rakkam bi ñu jëlee rakkam kidnappé ko yóbbu ko bi ñu ko yóbboo xam ne kii gelwaar la Lat Joor da koo jël jox ko sëriñam muy Abdoulaye Olimata Ba mu jox comme soxna Abdoulaye Olimata Ba am ci Marème Selbe Marème Selbe ñu yëkkati ko jox ko sëñ Abdou Hamid kan ci Kaolack mu am ci soxna Astou Kane soxna Astou Kane moom la yëkkati jox ko sëñ Babacar si mu Seydi El Hadji Malick mu am ci Cheikh Cheikh Tidiane Sy am ci Maodo ak ay rakkam kon gis nga kër Boursine niñ bokkee ak kër Seydi El Hadji Malick gis nga kër Boursine niñ bokkee ak kër Cheikh Ahmad Bamba gis nga kër Boursine ni mu ak kër Xaadir Yaay gis nga Boursine ni mu bokkee ak maam Imaamu Laay Yoof ndax tey boo ñëwee fii tey di nga fekk Laayeen Gosaas dinga nga fekk euh, maanaam dëkk boo xamante ne xaadir yi ñoo ko sos Boursine joxe ko kon Boursine mbokkum Sénégal gépp la nga dem ci lébu yi euh, rakkam bu ñuy wax soxna Mbacke Ndiaye moom lañ may góor gi ma Massamba Diène mi nga xamante ni tey commerçant bu mag la woon ñu bokk ñi nga xamante ne ñooy kilifa sëriñ Ndakaaru yi ñu jox ko soxna Mbacke Ndiaye mu am ci ñetti doom am ci soxna Faat Diène mi nga xam te ne moom mooy yaayu bàyyi Fatou Diène mi falu tey am ci soxna maam Kumba Diène mi nga xam te ne mooy yaayu euh, Linguère euh, Seynabou mi falu tey am ci ma am ci Daba Diène Linguère mi nga xamante ne moo mujj laata bu njaay di ñëw am ci taala Diène kon siin mbooleem ku baax koo xamante ni nekk nga siin bokk nañ ak yow waaye seq nañu yow ak kóllëre euh, ñu gis ay junjuñ ci suñu gannaaw lan nga ñu mën a présenter ci ñaari aussi dañu xaw a wuute tuuti waa xam nga euh, junjung dafa nekkoon lu lu symbole lu historique loo xamante ni nii euh, xanaa jamono dox léegi fi mu nii sax ba ñëpp ku ñëw mën koo gis ndax dund mii ñuy wax junjung moom buur rek laan tëggal bu doon tëggit bésu ajjuma lay tëgg ndax ajjuma ci la buur doon génn siin ñëw nuyu si buur ñu ñu bàkk junjung yi bu noppee mu fatu suy génn dañ koy bàkkal junjung yi suy ñibbisiwaat dañ koy bàkkal junjung yi xam nga euh, maam Cheikh Fall sax njabootam mu ngi fi ndax soxna Fallou Fall ah mi nga xam te ne sët la ci Buur Sine Coumba Ndoffène sët la ci maam Cheikh Fall Buur Sine mooy koo xam te ni fi mu dafa matale dafa waabale fépp la teg loxoom waaw. Euh, kenn daawu ko tëggee ñaari loxo benn loxo la. waaw xam nga léeg-léeg nag histoire day dem ba xam nga tëgg moom mënul nekk benn loxo <laughs> tëgg moom mënul benn loxo daa fekk ne kay yi nekkul ne géwél yëpp koy tëgg ndax junjung yi dafa am ay catégorie yaa ngi dégg ndax man mii di wax yow nii tey ci askanu géwél gi laa bokk waaye te ndënd mi nga xam te moom laa hérité man ñu di ko wax undulub ndënd moomu buur du ko gis du dégg son bi bu ma koy buñ koy foor guddi lañ koy foor weñ du ko laal ndënd moomu lépp loo xamante ni xibaar la yu war a xew ci biir réew mi ndënd moomu da koy annoncé par bi nga xamante ni moo falu tey te yàlla dogal na ndomb boobu tey man maa ci des man maa falu par boobu tey yaa ngi dégg kon ñun dañoo mëntoon a tàqaliku ak bursi ndax ñun ngéwél gi li ñu suñu borom dénk dafa bari ndax xam nga ne lu ci bari ci ngéwél gi rek ñoom ñoo ko yorul buur mystique communication ak lu bëri ak secret ak dox jàmm ak xam mooy lépp ba maa ngi nii tey di la nettali histoire yom te tey boo duggoon ci kër gi di nga fi gis sëtu buur te lii ma lay wax du la ko mën a wax kon loolu moo nekk ci histoire bi junjung kenn du ko tëgg benn loxo loolu moom histoire rek ndax tëgg moom buur boo koy tëggal daa war a neex te daa war a daa war a saf kon benn loxo mënut a safal <laughs> daa war a neex daa war a saf benn loxo du safal. waaw euh, comme ni leen ko waxee woon rek tey suñu dernier tomb bi nga xam ne moom lañu fa fas yéene waxtaanee muy jaraaf Mandiougour Sène dafa mel ni démb ci panel yi waxtaan nañ ci moom lu bari lan nga ci mën a indil ak rôle jaraaf surtout lan mooy jaraaf ak lan mooy rôle am. waaw jërëjëf euh, fi nga xamante ni euh, fi la ñu war a mujj suñu tomb bu mujj muy biig le 6 juin ñu ngi nekkoon ci plateau bi waxtaanee ku mag koo xamante ni moom tamit ndomb bu yaatu la yoroon fii siin muy jaraaf Mandiougour. jaraaf nag euh, li ñu la ci mën a wax mooy bu jaraaf amul buur du am ndax euh, buur boo gis jaraaf moom moo koy fal jaraaf nag li taxoon mu am mooy euh, ki nga xamante ni mooy Jame Ngom Fadial mu njëkk a nekk premier jaraaf bu siin nga xamante ni moo faloon Maysa yi ñoom dañu nekk ñoo xamante ni bu buur amul ñoom ñooy téye nguur gi ba ñu wut buur ba am buur ñoom ñu delloo nguur gi ñoom bugguñu faru lañuy fale te jaraaf tamit du nekk koo xamante ni du nekk borom alal jaraaf borom alal lay nekk mais jaraaf ku xam dëgg lay doon jaraaf ku nang dëgg lay doon waaye jaraaf ku uuf ñëpp lay doon ku yemale ñëpp moom du jeng jaraaf nag bu amul ci nguur siin nguur du am kon mbañ jugur moom moo nekkoon jaraafu Buur Siin Kumba Ndoofeen euh, mi nga xamante ni mooy bu ndaw léegi nag li weesu foofu yëpp ci nguuru siin mbooleem jaraax bu mag boo dégg ngoom la sant waaye moom daal moom la yàlla dogaloon tey mu génn ci ci ñu sant seen ndax yi jaraaf yi ci topp yëpp te sant seen jaraaf yu ndaw lañu doon jaraaf dafa intéressant ci nguuru siin ndax lépp moom moo koy coordonné moo koy digal buur sax pour mu def dara fi mu toll nii te déggowu ci ak jaraaf yombul waaw moo nekkoon jaraafam jaraaf bi moo nekkoon jaraafam moo ànd moom ndar moo ànd moom daaru manaan yaa ngi dégg moo ànd moom ci nguuram gépp nag waaw moom jaraaf ma jugul seen ku fiitu ku la dërërin yalla o la ilaha illa la ku fiitu ku la bisri la ilaha illallah habli muradiya kama ahwa bisri la ilaha illallah ala nabi mustafa yallah zalli bi la ilaha illallah salatu mukhnin bisalamin lah bisri la ilaha illallah salaatu muxnin bi salaami laahu bi sirri laa ilaaha illa laahu saatali rabbal bariyatil badan azabta qablu man xalaw nii bi dadan faddaytani rabbi bi sirri walalan zazataan yalxidaaka bil walan rafaxtama zaareli wa mabatan minni munawwiran bi fadli lil atan باركت لي في من جلا ومستكا وسائري وباتني فيك سكا ملكتني ما اخترت لي يا سسما وكنت لي بلا انتهاء بالأمن ذقيت لي مان بخيبك افترا سفست جملة الخلات بالخرن ضيت لي بمن كفاني المئن يا من بفلكي بفيد كسان جسبت لي سر النفاس والفتن بخلفاء من عمولي سلقة نفحتني الزبت عني لسن يا من لو من تامار التسن هربت العدام من رب اللان لخير در والحدو لم يان tursiyaanil amraadi sihatul badan waddaha rabbil mukhrijiya biddadan man sanna annaka tuhakkil basara wal jinna wal malaka lan yubashara haka siwaka khayru minal wara wa anta khayru man ilahi zawara madda ilayka allahu fadlan zara kama ilayka khadama lam yasara مدحك عجز الذي تفكرا أخمال يا خير البصير سكرا دحوت لله يلي البصرا والجن أنت خير هاد بصرا سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أدي برم تبا فود جوف سيارنا لا فود جوف سيارنا ye fo da juuf yaay rakki max fu juufe si yaar ye naa la bàyyi sëñ Ousmane bàyyi ko moo di juufe siyaare naa la Fodé Diouf siyaare naa Fodé Diouf magal gi yaa ko moome siyaare naa la Fodé Diouf siyaare naa iye Fodé Diouf e Fodé maye koore siyaare naa la Fodé Diouf siyaare naa iya goora kisaadi bu Diouf siyaare naa la Sëñ Fodé siyaare naa la. iye Gilaajo Touré siyaare jaxaaw siine siyaare naa la. siyaare Gilaajo siyaare yaay magi may sanaare siyaare naa la. jo siyaare naa iya bu bisi jofee buura feeñe siyaare naa la siyaare gila jo siyaare naa iyaay borom junjung yi ci siine naa la siyaare gila jo siyaare naa bisi gila jo nuroowulook naa la siyaare gila jo siyaare naa la waaw ah, màggal gi sunu màggalu maam la Buur Sine Kumba Ndoofeen waaw ah, dañuy wax rek waaw ah, moom moom li ñuy wax rek mais ku tedd kee ko defal nii naan lu mu def ba am ndam day yëfi boppam doonul ku ñuy xam moom nanu gëm Serigne Touba waaw moo defal ñëpp moo ko defal loo xam ne tey bu am màggal te ñëpp xamoon nañu ceet ba démb ah cinq-cinq yu mu amoon ak nu mu naroon def bàkkaar kon ku dul Serigne Touba mënu ko muccal moo waral seede ba mu seedee ba seede jafe ku tedd ki defal ko defal ko màggal ba tey ñëpp yow di ko màggal wala kon nekk ci dëgg rek moo am fulla jom ak fulla fonk sa waajur nekk ci dëgg waaw si saytu ak moytu waaw. ñun fi ñu féete ci waar wi loolu rek moo ñu mar ndax dañu doon ay doom doon ay sët ci kër gi doon ay jarbaat ñu dénk ñu responsabilité yi toll ci organiser màggal coordonné ak dalal gan yi yeewi leen. moo tax bu màggal yegsee du ñu am jot dañuy ne ci mbir mi dañuy ne ci waar wi kenn ku ci nekk dañuy bëgg a satisfaire sa besoin ndax gan dafa métti te gan bu nekk danga ko war a dadal tatargal ko buy dem nga jox ko yóbbal mu dem mooy waral jot duñ ko am dañuy benn yoon sax lañuy ñuy sangu wala amaan duñu sangu mais liñ ci jublu yëpp. waaw léeg question boobu bu ñu ma koy posé damay bëgg a dëstandiku ndax dafa xaw a diis. ndax boo gimmee ñu ne la sa maam lii ak lii ak lii la fi wax muy ay kàddu yu doy waar nga xool ko mu diis lool ndax euh, d'après liñ lay wax ci explication seede la rek Bour Sine liggéeyul ñaqul dawul bon jàngul xasida ferul jébbaluwul dafa dafa dafa seede ay baat peut-être contexte bi moo diisoon peut-être baat yi mu yëkkati moo moo xawoon raf dafa rafle woon ci jamono jooju mu wax ko moo waral mu am peut-être récompense bi mu ci am donc ñun bu ñu gimmee doon ay sët ñu ne ñu héritage bi lañ leen fi bàyyil ñu war ko consolider waruñ ko wàññi donc da ngay ragal daal da ngay xaw a ragal léeg-léeg euh, boo da nekk ci bërëb sax doo mun a doo mun a doo mun a doo mun a addu ci mbir ndax da naan est-ce que bu ma addoo dana méngoog dëgg bu nu méngoowul ak dëgg yaa ngi yaa ngi jëw sa maam donc il faut faire très attention nga vivre caché sax mooy tane ndax boo fësee da ngay da ngay exposé wu waaw héritage bu fi Bour Sine bàyyi moom sincèrement dafa diis dafa diis ci ñun waaw lu ñu dund la te dafa diis jërëjëf. waaw màggal gi sant yàlla bu baax sant sëñ Tuubaa nag suñu borom na sëñ moom fépp fu mu romboon teg fa tànkam sax ñu ngi koy kon su yàlla defee suñu maam seede ko si bureau bi ci Ndar. ñu dund ba tey ñu koy màggal ñun dañuy sant yàlla rek na santaat bu baax bi ñu suñu borom boole jërëjëf. donc ngi delloo ziar Bamba. waaw. Hmm. waaw lii am na solo ndax xam nga bis bi day bis boo xamante ne nii euh, dafa dépassé sax siin waaye képp kuy nit nga xamante ne ni yow doomu aadama nga te sam xel way na te nit ku correct nga. bis bii da nga ciy gis sa bopp ndax bis bisu dëgg nag du lu ñuy jàngal nit képp ku judd am xel rek kenn du la ne lii baax na lii na loolu da koy xamal sa bopp waaw kon lii c'est une valeur universelle ñëpp a ci bokk képp kuy ku baax rek bis bi war nga cee mën a gis sa bopp ndax bis bi day bis boo xam ne euh, bu amutoon kon yëf yi mën naa demee neneen ndax kon dëgg dana tumuranke waaye nag dëgg moom sa valeur dëgg dëgg dëgg ñi ko xam ñoo da leen di jaral bakkan ndax réew mii nga nekk fii nga toog penc mii nga toog kër gii nga toog boo delloo téeméer at ci ginnaaw kaddu bakkan la fi doon jar waaw waaye nag li nga laaj faw ñu taarixal ko tuuti ndax xam nga bu suñ ko mën bi muy seede Serigne Touba du seede bu yomb nit ñi buñ gisee ne seede bu yomb la ndax tuumaal ca kala tuumaal foofu la mbir may toll waaw ndax nit ki nga xamante ne bu la tuumaalee kilifa bu la tuumaalee rek. tuuma gi day day day jafee setal waaw te Serigne Touba ay kilifa ñoo ko tuumaal ay administrateur ay chef de canton parce que gouverneur général bu demee ba jot lettre boo xamante ni dañ ko bind gouverneur général coomo du ko bind kilifa rek moo man a bind gouverneur général te lettre yi tax gouverneur général aji euh, agir de cette façon ay administrateur ñoo ko ko bind informé ko information boo xam ne c'est pas la bonne information information bi ñu ko jox mooy Serigne Touba day jëndi nga nay di ko denc këram gi nekk Daaru Marnaan c'était ça la situation maintenant le 7 juin bi ñu dajee Ndar ña fa daje woon ñëpp maase nañu xam ne Serigne bi amul soxla ci nganay loolu kay ñëpp xam nañ ko daje bi convocation la parce que daje ba du c'est pas un procès ouvert à tout le monde par convocation ngay ñëwee par ordre ngay waxee gouverneur moo lay invité nga ñëw mu jox la parole nga wax ce n'est le cas comme le 5 septembre 1895 waaw nga xam ne kaddu gi daanaka wëru laajuñu kenn gouverneur Moutet a pris sa décision sans consulter personne mais lu gouverneur Merlin cette fois-ci a voulu consulter ñi fi am baat mu laaj leen seen xalaat ci la laajee ku ma dofin mu wax xalaatam waaw du moom kese am na ñeneen ñu demoon feneen waaw mais nag yooyu duñ koy faral di tudd léegi dañ ñu ko tere moo tax bàyyi nañ ko non non buur buur buy déplacé wu dafay ànd ak ay jaraafam dafay ànd ak nguuram buur kenn nit la mais nguur ay nit a ko séq euh, jaraaf mbañ jugur seen jaraaf mbañ jugur seen moo nekkoon parrain bi démb waaw jaraaf mbañ jugur seen jaraaf biram bisin a ko jur waaw jaraaf biram bisin mooy ki daanu tag jam doomu xarekat la waaw ah, ñoo nekkoon jaraaf yu mag yi ci jamono yooyu loolu sunu xarit Assane lay moo ko doon def maîtriser ko lool macha allah mooy mbokk gi nga xamante ne ne siin am na ko ak yeneen réew yi ñu wër ndax siin a ngi fi woon Saalum a nga fi woon Waalo nga fi woon Bawol a nga fi woon te te réew yi dañoo bokk waaw mbokk googu nag moom la doon faram ngir ñu xam ne siin moo bokk ak ñëpp ndax fii gelawaar jóge na fi sëyi fu ne ci biir réew mi waaw. message bi may lancé yàgg naa ko lancé mooy journée bi nañ ko def journée nationale de la vérité wala du 7 au 13 ñu def ko semaine nationale de la vérité loolu loolu rek la am lu may wax waaw merci beaucoup. sëriñ bi diggante ak euh, siin mi ngi jaaree ci sëñ Saliou Mbacké. sëñ Saliou Touré dama digganteem ak sëñ sëñ mi ngi jaare ci sëñ Saliou Mbacké yàlla def na it bis bi nekk bis boo xam ni muy 7 juin ak 13 juin nekk bis bi nga xam ni ci lañ seere woon Serigne Touba te boobu seere jafe lool buur siin commando fen mu seere Serigne Touba boobu mbokk yaa ngi fi jullit yaa ngi fi dëkkandoo yaa ngi fi ñëpp a ngi fi waaye booba seede googe nag mu gàcc ñett la ci njëkk moodi nguuram ñaareel ba mooy mantoom ñetteel ba mooy jaxaw fas ba kon loolee rëy na lool yàlla dimbali ko nag ba lam ca gàccoon digganteem ak sëriñ bi mu am ci lu kawe njortam mooy bis bii ndax tubaab bi ci ci boppam dafa ni bi mu ko bi mu wax bi mu seedee ba noppi mu ni bu bis bi dellusiwaatee muy ay bis dina ñëw seet ndax ay gànnaay ñu nga fa wala gànnaay nekk fa fekk ñu tubaab sëñ bi ni day feet fi tali jaat loolu mooy le 13 juin biñ ñëwee. lenn fekkuñu ko fa waaye lu jiitu loolu lépp Buur ci xariñam ci doomi te doom ñëw mu beeg si ko man ka dama bëggoon nga may ma ma daaru ma naan ndax tubaab yi de ay saay-saay lañ at nañoo jël gànnaay fetal ko fi loolu yéeme ba egg ci lool waaye yàlla def it Sëriñ Tuubaa tompatul wa ci loola dafa daal di woo dafa daal di woo maam Thierno daal di koy jox xasida gu ñuy wax yaa rahmaanu yaa rahim mi rabbi ma shraaw jox ko ñu jox ko ku ñuy wax Habib Gadiaga mu ànd ak ñu jàng ko di wër daaru mën naan diiru juróom-ñaari fan yi biñ ñëw xool gis ñu fa leen bis boobee nag bañ ci amee ndigal sëriñ Saliou Touré moo fi teewal sëriñ Saliou Mbacké jamono sëriñ Saliou Mbacké kañ la ko tàmbalee 1992 sëriñ Saliou Touré bi mu ñëwee 92 daf ni màggal gi de déwén la te dañuy door rek booba itam ñu ñëpp naan loolu sëñ bi lan lay wax nii ku ko waxul tim ci biir yaa ngi wax sa xel waaye sëñ bi moom xamoon na yàlla xamaloon na ko ndax keroog bi xamee ni cérémonie officielle bi mat na. ba am oto yi tàmbali tàmbali ñibbi biñ laa tay ak njaareem la taw la bi sob di taw ba 3 heures 4 heures du matin ñi fi desandi ko woon yàlla def na ci salle bii wan wan ma ginnaaw fa lañ fa lañ fa ñu eggalee bis bi Ibra Cuun El Hadj Ibra Cuun doon eggale jàng bi kon loolee dara gën ko la ki tegee siin sëriñ bi bi mu ñëwee dafa ne fas naa yéene bés bii su ko jàppul yéen waa siin man Saliou Touré dinaa fi indi ay ndaw dinaa fi indi ay xéwal dinaa fi indi ay gàtt ñu koy defar di màggal bis at bu nekk waaye yàlla def na waa Sine ci seen paspas at bu nekk dooleeku du am ba tey jii dëkk kër goo am def na la wàcca association bi tamit taxaw na ko waaye ñun ci wàllu suñu wàllu bopp diirub bi ñu fi nekkee ñoo ngi ànd ak waa Kër Bour Sine ci anam yëpp ci njiitu kan Sadibou Diouf yàlla na ko yàlla njëgal njëgal ak yërmande bi mu ñoo lay rakkam ja sëñ Fodé Diouf wuutu ko taxaw taxawaay goo xam ni kenn jàppoon na ni maanaam li Sadibou li Sadibou doon def am na ko mën a wut waaye Fodé ñu ngi koy ñaanal yàlla. ak ñi nga xam ni moom la àndal waa dakaari yi ci soxnaam ak njaboot yëpp ak waa Cheikh moodu Kara yi Cheikh Modou ñoom ñëpp ndax taxawaay bi mat na te nañ ndax damay wax ni tey jii cëru buur de yaatu na fi kenn ku nekk yaa ngi toggoo buur waaye li fi Sëñ fii ci ci dëkk bi Fodé Fodé Diouf la loolu ma si li fi Sëñ Tuubaa la cërub Sëñ Tuubaa moom Fodé Diouf la ma koy seede bu baax xam naa waxtu weexat ba beneen yoon incha allah dañ ko am lu gën a asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. Ah, représentant xalifa sëñ waa ngi nii man maay représentant xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall xanaa sant bég di sant Buur Sine di ko ñaanal fa mu tëdd yàlla na ko gënal fii mu jóge ci barke Serigne Touba lii taw feex rek ci ñun ànd ak jëmm ji ñëw fii ànd ak mbooloo mi yëpp ci gannaawam di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ci barke Serigne Touba message bi mooy message bu yomb la. ñun waa Sine nañ xam li ñu am te téye ko bu ñu ko amee téye ko kenn du ñu ko téyel ñun ñoo koy téye te incha allah sëñ Touba moo yor ay mbiram mu yéex mu gaaw mu gàtt danañ ko téye incha allah. xanaa delloowaat xale ci valeur ak xam seen bopp ak cox dëgg lu métti métti nga xam ne nit dafa war a wax dëgg donte day dal sa kaw donte lay indil fitna donte daal coono ndax xam ne dëgg rek moo sa kan Bour Sine li mu am tey dëgg moo ko jural moo tax kër buur amadu Sénégal waaye fii rek nga fekk kër buur. màggal ak buur amul ci àdduna bi fii rek ngay fekk màggal ak buur dara warul lu ko lu taxawaayam bi mu taxaw ci diggal Seexul Xadim loolu nag am jàngat la boo xam ne bis bi symbolique la boo xam ne ku fi ñëw ku nekk loolu a jàngat mooy wax dëgg ak sax ci dëgg ak nekk ci dëgg ah man nag euh, tey damaa ñëw ci bés bi doon sama bës ndax euh, sama borom kër Mahécor Diouf doomu Coumba Ndoffène doomu Mahécor bu mag kon moom ci famille bi la bokk kon man ci famille bi laay sëy ma ñëwaat fi aussi en tant que taalibe ndax ku ma xam-xam ne setu maam Cheikh Ibra Fall di taalibe ak kan donc ku ne maam Cheikh ne Serigne Touba kon Bour Sine su témoigné lee Serigne Touba suñu sëriñ bi suñu suñu lépp ci àddina ak àllaaxira nga bokk ci famille boobu bés bu mel nii bu amee loo jàppoon da koy bàyyi ñëw ñëw sukk ñaan ngir bés màgg bés boobu defe naa bés boobu képp ku bokk ci yoonu murit képp kuy sénégalais am nga fierté ndax dëgg moo jub keroog dëgg googu moo tax tey lii am muy wane rek ni dëgg fu ñu fekk rek nañu fa bàyyi ndax gor rek moo mooy dëgg gor moo jafe waaye ba nga xam ne kenn ñemewul woon Bour Sine dafa témoigner sëriñ Touba te loolu moo ko may lii te ku gis daraja famille bii tamit xam ni bés boobu li leen sëriñ bi ñaanal ak xolam la mu sedd moo leen may ñoom tamit foo dugg ci senegal ci lu baax ci ñu baax nga fekk leen fa kon nag man dama am fierté ne ci famille bu baax laa bokk ci famille bu baax laa jóge waaye ci famille bu baax tamit laay sëy ñuy ñaan yàlla ànd bi nga xam ne famille Diouf ak famille Serigne Touba ñu ngi koy ànd ba sët yi ñun ñii ñu ci bokk lépp lu ñuy judd yàlla na barkeel saay bu ñuy tudd taarix yu baax yi ci réew mi yal nañu ci boole di continuer di ñu ci boole. waaw li may wax rek mooy euh, ñun waruñoo jàngaani fenn lenn ndax euh, figure bu ñu bëgg ak royukaay bu ñu bëgg am nañ ko. moo xam suñu kilifa aada moo xam suñu kilifa diine bépp valeur boo xam ne tey nit soxla na ko pour ñu lim la ci ñu baax ñi buñ ko xoolee ci suñu ay maam. gis ko kon ñu ngi ñaan lii nga xam ne mooy suñu histoire réew suñu ay doom suñu ay xale suñu ay ëllëgu doom ñu xam ko bu baax a baax a baax ndax nit boo xamee yaay kan xam fan nga bokk lan la say maam def lan moo war a tax nga war a mën a am taxawaay bu dëgër soo gisee nit ñu naan ko war ngaa jomb dara ndax fa nga bokk soo gisee nit ñu naan ko war ngaa jëf-jëf ju rafet jëf ju baax ndax fa nga bokk kon nit ku nekk war ngaa xam fa nga jóge ku li ñu na li olof njaay naan bu ëmpale sa démb sa tey doo xam nooy taxawee te sa ëllëg dana ñaaw jërëjëf